Hola! billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa an sirar xalxa wa razaya wa jinna wa seytaane wal balaya maa balaayi wa maa amraadi wa biridatan xaaduli enraadi asalaamaaleykum mbokki julli yi mbokki taalibe yi mbokki bàyyi xel seen télévision Lamp Fall noo ngi leen nuyu baax te di leen ziare noo ngi jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sunu yaakaar Cheikh Sidil Mokhtar noo ngi ñaan sunu borom jàggal ko fi lool te muy ko ak wér noo ngi ñaanal baax Serigne Cheikh Jëmmu Fall di ñaan suñu borom dolli ko fa yàggal lool te may ko wër ak wér ba yéeneem ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall maamam suñu borom kàttanal ko ba mu def ci lu noo ngi ziar bu baax mboolem sëti Serigne Touba yëpp waaye di leen ñaanal bu baax baax di ziar bu baax mboolem seexi Serigne Touba yëpp waaye di ziar mboolem sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp di ñaan ci barke Serigne bi. yàlla na leen san borom kàttanal te jàppaleen ba lépp lu ñu yéenee liggéeyal ku baax ki suñu borom kàttanal leen ba def ci lu kawe seen jort noo ngi ziar bu baax mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne saa bu talaata jotee ci waxtu wi ñu jàkkalook seen Lamp Fall télévision ngir di ci taataane seen eh, jotaay bu am solo bii nga xam ne mooy Jazbul Mouride ñu ciy waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall akum njàngaleem waaye di ci waxtaanee itam pas-pas nu ñuy def ba jëriñ ci Cheikh Ibrahima Fall ci yoon wi nga xam ne moom la ñu teg ngir ñu lëggeel Serigne Touba eh, Cheikhul Khadim eh, di sant bu baax a baax nag mboolem ku ñu topp saa su ne fu ne rek biir réew mi ak biti réew ak mbokki taalibe yi nga xam ne saa su ne itam. dañuy yëglu ngir seen pas-pas ak seen passeef ci maam Cheikh Ibrahima Fall di santaat bu baax nag di ziare sunu kilifa sunu yaakaar sunu sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke ibnu sëriñ Mouhamadou Fadilou Mbacke ibnu Cheikhul Khadim mi nga xam ne tey moom lañ fas àndal ci jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi muridina tey ñu fas yéene waxtaane yëg-yëg ci maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima ak yëg-yëg ñu fas ci ànd nag ak waxtaan yi sëriñ Abdou Karim Mbacke moom sëriñ Fallou moom mi nga xam ne ku gis jëmmam eh, defe naa di nga xam ne lépp Cheikh Ibrahima Fall rek lay dund waaye di nga xam ne itam pas-pasam ak yéenam lépp rek mooy eh, dund maam Cheikh Ibrahima Fall dund ak baay Fall te loolu feeñ na ci jëmmam feeñ na ci ak njabootam eh, ñu ngi ñaan suñu borom doolu ko fa yàggal lool incha allahu tey ci jotaay bi sëñ Alioune Badara dañ lay bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan saa su ne su ko defee nag ñu door a dalal nag Serigne Jaaji Taal mu bi ñu door a nag delsi ci sëñ Abdou Karim fas yéene seq ak moom waxtaan wi tey lépp rek du di maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine ak mbokki taalibe yi nga xam ne saa su ne ñi ngi bàyyi xel sëñ Alioune Badara jërëjëf sëriñ Mamour Ndaw aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddil lisaani nawir janaani safi amaani wasir bara i barki maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yu Lamp Fall mbokki auditeurs yi ñu ngi am eh, di dellu siwaat si jotaay bi tëdd jotaay bu màgg bi ñu jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall di leen si nuyu di leen si ziar waaye ziar bi tàmbaleeku ci Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke mais xaalis général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi loolu Mbacke tànd wér noonu la ñuy ñaanalee sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa général des Baye Fall di ko ñaanal mu yàgg fi loolu di nuyu ak ziar ak ñaanal sëriñ Cheikh Ngunda Fall mi suñu yaakaar tey ak ëllëg si kër maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal Fall mu yàgg fi di ziar mboolem mbokki jullit ak mbokki taalibe waaye ni nga waxee sëñ di beral nuyu ak ziar sunu kilifa sunu sering sering Abdou Karim Bakke Falilu, borom makarimal akhlak niñ ko xamee ñun ñëpp di ko waxee ni ko faw nga tudd maam Cheikh Ibrahima Fall ndax euh, dogu geeg pas-pas gi ak bëggam Serigne Touba. ndax mhm. mu wane ko si maam Cheikh Ibrahima Fall bu baax a baax kon di ko ziar ziaram googu kon jaaree ko si moom noonu lañ koy jaaree kon xalifa euh, Cheikh Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke. Mhm. Euh, di Serigne Abo Mbacke Fallilu di ko ñaanal moo it mu yàgg fi loolu tànn ko wër ak mboolem njabootu fal lu Mbacke. lépp rek kon fas yéene waxtaan ndax waykat bi nee na sëñ Mamour. Mm. Cheikh Ibrahima Fall yéeg yëg la. yëg-yëg la mm-hmm. moo tax Cheikh Ibrahima yëg ak ni nga koy yëgee. Mm-hmm. ndax moom rek laa gis ni eh, sëñ mm-hmm. boo ko tuddee. wala amaana eh, eh, gën na see fës maam Cheikh Ibrahima Fall. moom rek ngay tudd si mbooloo. wala nga tudd ko fekk maanaam nit ñi di tekk. wala ku mu fekkoon ngay nelaw di nga yeew. ku mu fekkoon nga toog maanaam di nga jàjjuwaat. comme fekkoon maanaam nga taxawit di nga am yëngu goo xëy di nga ko yëngu mhm. loolu nag Serigne Touba moo ko def si xolu doomu aada yi moom maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. tuuti dina gën a leer ak mhm. Serigne Jaaji Taal di ko ziar bu baax a baax waaye Serigne Abdoul Karim Mbacké Falilou di ko sant bu baax di ko gërëm ndax nangul nanu loo xamante ni eh, maam Cheikh Ibrahima Fall rek a tax sëñ Maodo ndeysaan tubaarkàlla loolu bu ñu ba ci biir eh, jotaay bi sax danañ ci gën a am firnde ci ne eh, kàddoom di ko dégg yombul waaye nag Cheikh Ibrahima moom nee na ko ko ci woo mu si la te loolu firnde li firndeel mooy waxtaan wi nga xam ne seq na ko ak keroog eh, di ci jaajëfal bu baax a baax nag mboolem groupe Lamp Fall ndax ñoom it eh, saa su ne ñu ngi teete di ñu jàppale ba ñu gën a mën a am eh, pas-pas ngir gën a mën a liggéeyal Cheikh ci jumtukaay yi waaye di leen ñaanal bu baax di ko jiital di ci jiital sëñ Aline xam nga ak sëñ Ibrahima Gueye mboolem ñi ci nekk sañ Bay di xam naa du du duñ mën a sori dañuy rek. ubbi ak mbokki taalibe yi comme saa su ne ñu ngi doon xaar surtout ni ñu leen ko diggee woon tey e, sëriñ Abdou Karim Mbacke ibnu sëriñ Mouhamadou Fadilou waxtaan ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina e, waaye tamit ñi tàmbalee ak sëriñ Jaaje Taal sëriñ Jaaji moom defe naa du gan ci jotaay bi mm-hmm. e, toog na fii ba tàyyi te jombut sax xam naa dana dellusiwaat mm-hmm. incha allah kon bu fekkee sëriñ Assane élément bi jàpp nañu ànd ak sëriñ Jaaje Taal mu ubbil ñu waxtaan wi su ko defee ñu door a nag tàbbi ci kàddu yi sëriñ bi kon ñu ànd sëñ jaaji taal tëddee si jotaay bi. sëñ Sidi Mokhtar Mbacke yàlla na fi yàgg te wér sëñ bi di bëgg lool ci seen ñëw gi fii ak seen jitaay bi ak li leen tax a jóg. te ngeen taamu ko ci te loolu mooy waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne waxtaane ko mooy waxtaane nitu yàlla ku mat sëkk fees dell ci fànn cëri yàlla yëpp xam-xam ak jëf ak wilaayatu kooku nag di ko di ko xóot ay mbir fees dell ay mbir di lu rëy ci lislaam ndax xàll gi mu xàll yoon woo xam ne yoon wu doy waar la wu gaaw te yoon woo xam ne eh, bu jafee dégg la itam waaye ki cautionné yoon woowu nag may ko doole nag muy Cheikh Ahmadou Bamba moo tax ñëpp xam ne sëñ Touba ku bari ay denc la ci lislaam ku ci am sañ-sañ la ku ko xam la xam architecture lislaam xam yoon yi ciy jaar yi ci gaaw yi yegg yi sakk ak yu gudd yi yëpp sëñ Tuubaa xam na ko nga xam ne dafa am inspiration di bi di wax ak yàlla saa su ne kooku raw kooku di wax yàlla saa su mooy sëñ Tuubaa loolu la indi koo xam ne jéego boo jéggi di nga xam la cay dëgg ak la ci dul dëgg la ca neex yàlla ak la ko ca neexut boobu atte moo gën a foor yeneen atte yi boobu atte la Cheikh Mat Bamba yor bi mu ko yoree ba noppi nag te ñëw nag te bëgg a defar jamono sëñ Tuubaa du ko defaree werante werante mooy nga fekk nit ñi bind nga bind ca wet ga dara la muy jur mooy ñeneen ñëw bindaat ci sa kaw rek mbind ma teg ñëpp di la weddi te mënoo dem fu ne nga na layal sa bopp moo tax sëñ Tuubaa mbirum mbind foofu nga koy njëkk a yéeme mosu cee juum parce que du bind lu jar werante mukk lim fi nekkee lépp mu fekk ko fi da koo suturaal. bindaat ko ànd ci waaye la ko tax a jóg bindu ko waxu ko lu mu def lu mu ko def da koo jëf loolooy Cheikh Ibra lim bindul te waxu ko fenn te jëf ko mooy Cheikh Ibra ci la defee jëmm joo xam ne li ñëpp di wut daje na ci moom mu am ko ci ndiggante si gën a gàtt gën a jum ñépp gën leen a baax jikko gën leen a tabe Cheikh Mat Bamba itam cautionné ko may ko cër boo xam ne ko ne xam na ne moom dong la ko may nga xam ne ku comprendre lu Cheikh Ibra Fall rek war ngaa laaj sa diggante ak Sëñ Tuubaa ba xam comprendre nga kon déet foofu la Cheikh Ibra Fall yeeg loolu Cheikh Ibra Fall yàlla defal ko cër boo xam ne bi mu ñëwee ci Sëñ li mu jàngal nit ñi di leen ko wan mooy yem tàmbalee leen ci sëriñ bi yem ci xam nga jooju baat day soog a xew baat boobu portale rek la Cheikh Ibra rek lay portale tàmbalee leen ci sëñ Touba te yem ci sëñ Touba li gën a jafe ci àddina bi mooy fonk gim ko fonk kenn mënta fonkee noonu sëñ Touba ndax toujours nit au lieu mu jàpp ne si lislaam a ngi ci biir sëñ Touba day defe ne lislaam dafa dend ak sëñ tuba foofu la jàpp ni wuute Cheikh dafa jàpp ne sëñ tubaay lislaam lislaam mi ngi ci biiram maanaam boo bëggee laal l'islam il faut nga jaaree ci sëñ bi am ñoo xam ne ñoom ñu baax la ñu jàpp nañ sëñ bi am na gépp mbaax waaye sëñ bi daa nekk nii yor mbaax mbaaxam googu l'islam nekk ci wet gi ñaar yooyu dañoo doonut benn Cheikh sëñ bi dafa am bis ca njaareem muy def ay tomb tombam yooyu nga xam ne ci lay yar ñëpp bi mu ko defee ba noppi nag bàyyi tomb yi nag bantu jalambaan bi mu doon jàngalee mu mu koy dóor ci tomb yi daal di jël benn loxo bi teg ko ci bopp bi nii noonu muy def buy xalaat dal na Ibra Fall di gërëm naa ko lool Ibra Fall di gërëm naa ko lool Ibra Fall gërëm naa ko lool sëñ Mat Jaw Paxane ah Mbàkke Ibra de cant gi nga ko sant dafay nuyu waaye bu fi newoon nu ne lay sante kon de santal naa ko ko man na sëñ Massamba Diop Samb ne ah, Fall Mbakke yow de Fall de lim la defal ba nga sant ko gi cant ko ko xamoon di nga ko def wala nga jéem ko bokk nee na sëñ Tuubaa ne ah Ibra Fall de defaluma lu ma kenn defalu daal Ibra Fall de defaluma lu ma kenn defalut Ibra Fall de defaluma lu ma kenn defalut waaye damaa teg fu ma kenn daal Ibra Fall dafa xool la soob sama borom ci man moom ma ko def nee na mu gëmee ko noonu nangoo ko noonu nii moo sama borom mi ko def waaye loolu de jural na ko tulli naa ko ci yàlla foo xam ne liggéeyal góor duutu fa yóbbu liggéeyal yàlla du fa yóbbu góor waaw sëñ Tuubaa bu dee sëñ Tuubaa mi jàpp nga xam ne lépp lu baax a ngi ci biiram ku bëgg a dajale lu baax doo jàpp sëñ bi wala dangay ngay dendale sëñ beeg lu baax mel ni dañuy ñaar. foofu rek la mbir mi ne Cheikh Ibra nag xam ngi mu xam sëñ bi nag ci njëkk moo tax ma ne la wilaayatoom yemalewu ko kenn ndax wilaaya la jiitu ak dund am na ñoo xam ne da leen di dikke prémonition lu mel ni ay gént waaye am na ñoo xam ne du leen leer dañ koy fàtte Cheikh Ibra nag démbam njëkk muy ñëw àddina ak démbam ak sëñ Tuubaa njëkk ñuy ñëw àddina da ko leer nañ ni ko teyam leere motax masna mas seigne musaka Moussa Ka bam ñew ñëw mu ne ko Moussa Ka mu ne ko faal mu ne ko ñëwal sama digënde ak seigne Bamba seigne Moussa Ka neena ma top si ba jege ko mu ne ma top si neena semu ma top ci ba sama woom bi diko laal mu ne ma Moussa Ka ma ne ko ma ko faal mu ne ko xanaa xamoo ne bi yàlla ak suuf sama ruugi ci biir riiw seigne Bamba seigne Bamba lañ ko denc Moussa Ka mu faal mu ne ba sunu borom xajjele suuf. la def sëñ as suñ bamba muy asamaan may suuf kon Cheikh Ibra xel xalaatul di atte ak jaamu yàlla am ko xamul dara rek moo koy def ab mu dafa weesu ñu koy teg ci bureau walla taabal di ko jugé ko da koo weesu xam nga mbir nit day wax ci lu mu xam lu mu sonne wala mu gëstu ko wala mu dégg ko waaye loo xamul sonne woo ko déggoo ko ba pare jàng tuuti rek bëgg ko atte loo erreur boo gis ci àddina moo ko indi diine yombiwut noonu Cheikh Rafal dadul gone wala cuune bopp da ku ne da ngay war a jël rek sa làmmeñ rek di mbel-mbel yi di wax sa ci moom ndax koo xam ne lim def ci àddina kenn mës ta gis ko ko def defal ko sëñ Tuba mooy laxas góor ñépp suuf gënal leen kaw te dóorut kenn te àddina foo fekk ñu xuloo xëccoo kaw ko waral guerre boo mës dégg xëccoo kaw rek ko waral Cheikh fexe ba góor ñi suuf gënal leen kaw kaw gi ne kenn dong di fa toog ñëpp di borox borox ci suuf gi ba pare muy bànneex ci ñoom Hitler defu ko Mao Zedong defu ko Karl Marx defu ko doo dégg benn xel mu rëy mu ñuy nett ci histoire ku mën a def loolu Cheikh Ibra Fall dong nga ko mën foofu lañuy ñu xam ne Cheikh Ibra Fall du noonu la doonee nattukaayu Sëñ Tuubaa fii nu ku gën a bëgg seex Ibra Fall moo la ëpp cër ci Sëñ Tuubaa waaw loolu moo leen si indi ndax Cheikh Ibra Fall secret sëñ Tuubaa ku la ko gën a bëgg rek moom bu ngeen di jàkkaarloo ngay xam ne moo la gën moom baatu gën lay utiliser benn secret amu ci ndax nattukaayu sunu bu sëñ Tuubaa la yow mii nag bëgg gi nga bëgg Cheikh Ibra Fall kenn du ko nattable te bëgg gi am yàlla am yella bëgg sëñ Cheikh Ibra ci sëtu sëñ Tuubaa am na yàlla am na yella yilla ji lay ñëk wax gor su tol ni Cheikh Ibra Fall juddoo ni mu juddoo xam limu xam am limu am man limu man japp sa mam tek ko fim ko tek walu ko nit ñi ba ñepp fekk ko ci di sa cër di sa ndono nga di ci dund ku ko defal sa mam war nga ko bëgg ku ko defal sa mam rek yow koko mom dang ko wara bëgg te loolu da ko ko defal jangal jangal nit ñi sëñ tubaa mooy kan jàngal leen nus war a def sëñ tubaa nus ko war a jàppe yow loolu yoolu ni sa lépp mel da ngay jël ay position waaye doo ko wane ndax loolu su da nga yiw da ngaa yiw yow boo faree ci béréb it ñëpp dinañ xam ne lii neex na la waaye doo yëkkati sa kàddu mukk di wane ne damaa far ci béréb ak damaa def nangam da ngay doxal li ngay doxal rek waaye ki nga ko seqal nag muy sëñ Tuba danga ko seq ak moom muy Cheikh Ibra Fall ñooñu itam dañoo yor tontu donte yow nëbb nga sa position ñoom mënuñoo nëbb seen tontu ndax ñoom buñ tontoo day daal di feeñ feeñ gëm feeñ moo la may sa Baay Faal yi Baay Faal yi nga xam ne a ah, ku xamul seen njariñ day ca bu njëkk xam nga ko tey mbooloo mu disponible boo xam ne saa soo leen soxlaa ñuy doole yi sëñ Tuubaa dem liggéeyal sëñ Tuubaa dégg loolu dafa amut loolu moom kër Cheikh Ibra Fall la am ak sa kër gi loolu nag moo waral sa bëgg gi nga ko bëgg di ko doxe ñoom it ñu feeñal ko ci yow wane ngeen ku Cheikh Ibra Fall boppam ci moom kon yéen ah, seen émission bi seen yéene ak seeni doxalin sell na bu doxoon bu bu bu ci dara raxoon di ngeen wër adina bépp waaye du ngeen mën a ñëw fii waaw waaye ñëw gi ngeen ñëw fii moo tax ngeen xam ne ah macha allah Baye faal nag moom toujours dama gis sëñ bi di ko wax moom may bopp <laughs> na ngeen xam ne daal <laughs> na ngeen xam ne daal euh, yoon ngi dox sëti Cheikh yaa ngi nii dàq fee jàng ko fee bind gën fe set gën fe sel ay setatam sax lay wax defar daara ju rëy fële ca jantul max wa daara jo xamne ne luy xam-xam ak mbax ak yar ak ak teggin fofu lañu ma formé goné yi di len fa jangal ngir li nga xamne ne kenn mënta fexe ba mu ràpp te modi mbay Fall gën fa yes gën fa doxati rek ne mbay Fall mom du rap mom mom la di nga muju xat ci adina ndax Mbaye Fall moom day jëm kanam kanam dong la mën a jëm moom du dellu ginnaaw ndax ki koy suuxat mooy sëñ Touba te sëñ Touba moom lu muy suuxat lu ne dangay ngay meññ moom kon sëñ bi eh, jërëjëf bi nga bi nga ngay tiitaroo liy sagu murit yëpp murit yi am na ci ñoo xam ne sax lu ñu Baay Faal nii comme nii ko Baay Faal Baay Faal yi doone waaye Cheikh Ibra Fall moo leen neex dégg looy booy booy wax Cheikh Ibra Fall bëggatuñoo déglu lu dul ñoom loolu duy ca duy tappale du politique yàlla moo ko def Cheikh Ibra Fall moo leen neex dégg nga li ma la ku bëgg Cheikh Ibra Fall it yaa saf murit yooyu waaw ku ne sañ na ko. tubaarkàlla eh, jërëjëf sëriñ Diadji Tall tubaarkàlla sëñ Aline Badara dégg nga sëñ Diadji Tall fi mu daanale ay kàddoom eh, Cheikh Ibra Fall moom eh, képp ku ku ku ko bëgg rek da nga saf murit yi. loolu firndeel la ci jotaay bi tey defe naa ci sëñ Abdou Karim mu Serigne Fallou. mooy mooy li mhm. ma jógee wax sànq. Mhm. gis nga euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ni mu def Serigne Touba. Mhm. bokk na si li ko Serigne Touba fayee. jël murit yëpp. walla képp lu bëgg bëgg lu baax. maanaam mu dugal la si xolu maam Cheikh Ibrahima Fall. wala mu jël sa xol dugal si maam Cheikh Ibrahima Fall. moo waral li ma wax sànq saa yu suñ ko tuddee. ak lu mu la fekk ngay def mhm. faw nga prêter attention faw nga mhm. bàyyiwaat xel mhm. tour bi am na nu muy def ci yow loolu nag yëg-yëg boobu nag ku si nekk ak ni nga koy yëgee waaye ku mu mën di doon ngay murit te wala wala wala nga bëgg lu baax fu ñu tuddee tour maam Cheikh Ibrahima Fall waxuma ñu wax si moom dara de waaye ñu tudd tour bi faaw nga am loo yëg wala nga waat loolu nag wax dëgg yàlla euh, euh, euh, jarul sama sama xalaatu bopp du loo xamante ni xëy na jar na wër fu sori ni mu def Serigne ndaxte nag Euh, da ngay dégg si nettali ñu ne. Mm-hmm. Euh, Serigne Touba day wax naan Cheikh Ibrahima moo ma teg fa ma yàlla teg. Mm-hmm. moo xam fa yàlla teg mu teg ma fa. ndeysaan te dégg nga seen jaay ji sànq lu am solo li mu wax. Mm-hmm. Euh, ni ni ni Cheikh Ibrahima. nee na ba sunu borom sàkkagul dara. sama ruu gi si ruu Serigne Bamba la ko denc. nga xam ne kon moom léppam Serigne Touba la wax dëgg yàlla sëñ Maam. jërëjëf sëñ Alioune Badara dégg nga yëg-yëg la sëñ gis na maam Cheikhum sëñ Cheikh Fall Mbor ni ko waxee. yëg-yëg la yàlla koy dugal ci xolu waa ju mu bëgg aj na fegal ko ab. mbugal yowmal xiyam deesu ko caw xana xalaas xana ko yegul tubarkal <laughs> yalla eh, eh, ndok ba ñëgé cheikh ibrahim eh, xamna duñ sori dañuy and ak seigne abdou karim makarim al ahla mom serigne fallu mom nak ñi ngi sakku ci mbokki talib yi nga xamni ñi ngi jakarlo ak élément bi di waji ñew ñu ñaanal ko bu baax baax sun borom yagal ko fi ta ko ak wër mu gudd fan waaw dem ba romb romb ati Baye Cheikh Tall Gallo yi. cent cent trente sept ans. waaw téeméeri fanweer ak juróom-ñaar waaw waaw tubaarkàlla yàlla na fi yàgg ci barke Cheikh Ibrahima kon ñu fas ci sunu aajo yëpp rek. te mu mucc si dund ak te mu mucc waaw kay tubaarkàlla macha allah. kon rési ñu dellu ci sëñ Abdou Karim te dellu si jotaay bi bu nopp. leen saare bu baax leen nuyu yéen Lamp Fall leen xamal ne bis bu mel ni nga xam ne amul benn xew-xew bu xew lu dul nu toog fii ci sunu bunt kër rek ak ak talbe nuy nuy nuy nuy béggee Cheikh Amadou Bamba rek ngeen ñëw bëgg no jël bëgg enregistré sunuy waxtaan yéen ko jukkaan mbooleem kàddu goo xam ne mos ci sama lamiñ di génn di dem bisu xew-xew lay doon lu xew ci Touba ci yi rek màggal gu màgg yi wala màggalu Kazu Rajab rek wala yu mel noonu ma sànni ci ay kàddu yu tuuti rek waaye ñëw ak sa rajo ak sa appareil dañoo bëgg nga sànni ay kàddu rek ma daal di jël sànni kooku moom yéen a ko jëkk am mustaam te daanaka jaaji mi doon waxtaan léegi xam na ci dara ñi ma delloo ñëpp xam nañ ci dara daanaka ci ñu ñëw di ko soxla daanaka ci lañ dëkk fan yu néew yu ma am dana am ñu ñu ñu ñu mel ni yéen yor li ngeen ñëw fi soxla loolu te duma ko def. baat ba tax ma ma ma ma ma ko def itam mooy bi may wax rek kooku moom sama wax la boo xam ne bii du ci jóg mukk fii ak sama bakkan fi muy dama nekk ci dëkkub kilifteef nga xam ne dañ ma fee yilif te yoon li yoonu kilifteef damay wax bu nekk ne eh, Touba ki fi war a wax mooy sëñ Sidi Moxtaar rek wala ku mu wax loo ku mel ni sëñ Bass Abdou Khadre mi nga xam ne moo baatam ak jëwriñam yi yi ci des nag yi nga xam ne sëñ bi daf leen a jox ay kër yu mag ñu jiite ko te ñooñu it seen wax mooy bis bi ñuy am ba kër ga am bu ñëwee ñi leen yaakaar ngir jëmmi seen duwaa ñëpp daje fa màggal bis ba bu njëkkee ba yëf yi di jeex gannaaw yow lañ yaakaar te yaa leen fa dajale nga sànni leen ay kàddu yoo xam ne kàddu yi kër ga lay doon lépp jëm ci Sëñ waaye kër ga lay doon nga digal leen ko tere tere leen ci sa biir kër ñu dem yóbbaale loolu loolu loolu moom danay am waaye bu dee baatub dëkk bi nag nga xam ne baatub kër baatub dëkk bépp kooku moom sëñ Sidi Muxtaar rek moo ko moo moom wala ku mu wax loo loolu moo waral sama wax du bari man nag maa ci gën a maa ci maa ci war a gën a gën a néew ay wax man ndax sëñ Sidi Muxtaar bu yilifee dëkk bépp kër gi ma bokk da ko yilifale kër gi ma bokk nag bu ko yilifalee ba kam kam yilif yilifale ma kooku koy man lu dul dégloog foto waruma koy def rek euh, waaye nag boo gisee lii tey ma nangu ko muy maam Cheikh Ibrahima Fall rek waaw Cheikh Ibra ku ma ci woo ma bañ ku ma ci woote wuyuwuma la kon nga xam ne defuma li ma war a def li ngeen jëkk am nag li tax ngeen jëkk ko am mooy li ngeen ma woo yéene ma ci jëkk woo moo tax waaye nun nag yàlla def noo dimbale ba ki nga xam ne ci génn moom muy maam Cheikh Saamoon Bamba ak Laaji Fallu dañuy cee far ubbil bunt dañu ko ubbil bunt far bunt bi mooy sëñ Abo Mbakke sëñ Abo mi nga xam ne ah maam Cheikh ay maamam rek far muy bopp sunu kër kookay moom bunt la boo xam ne nun leeral na sunu mbir leeral na sunu maam Cheikh nag man mënuma cee sori si waxtaan ndax maam Cheikh dafa rëy dafa rëy rëy koo xam ne neexut ku mel ni man di di di ci waxtaan waaye xam naa ne daal képp koo dégg ñuy wax ne murid saadex la ñu tudde ko murid saadex xam nga am na ci yoon yoon yoon ñoo xam ne da nga wax oh, yow de moom li mu doy war la koo dégg ñuy wax ne murid saadex la boo demee fekk wax googu ñu wax ne murit saadax la di dëgg danga fekk muy dox doxinu maam Cheikh Ibrahima Fall kooku moo mun si kës képp koo xam ne dañ ne murit saadax la nga dem te fekkoo muy dox doxiinu maam Cheikh Ibrahima Fall xamal na dañ ko ko waxal waaye saate ga du amut waaw ga amut saate moom murid saate moom bu ñu la ko waxalee te mu wér kañ ko kañ ko wax ci moom boo demee boo àggee la ngay jëkk a gis ci moom mooy doxinu maam Cheikh rek melo wax jaag doxin waag lépp maam Cheikh lay doon boo ko fekku rek tur fa ne waaye waaye waaye waaye eh, eh, lañ lañ wax yi am na ñu bari sax defe nañu jànguñu te man nekk naa ci daara ñu andil ma fa ñu andi fa kaamilu sëñ Cheikh Fall Góor. waaw nga xam ne booba eh, li taxoon mu ñëw fa moom fa nekkoon ak ñetti doomi sëñ Modou Moussa Fall ak doomi sëñ Cheikh Fall bay góor taawam sëñ Moussa Fall sëñ Moussa Fall moom laa fa nekkaloon ak sëñ Bàcc Fall ak sëñ Yidaali Fall ak sëñ Fallu Fall Fatikan ñu andi fa kaamil boo xam ne euh, dañ leen ko ngir ñu di ko jànge di ko roy kaamil ba euh, xam nga ndongo daaral lu ndaw ay téereem day gaaw son euh, sonn mag nga mujj tas ci daara ji ba doo xam ne waaye kaamil ba amoon naa ci ñaari kayit man ñaari kii ndax tas gi mu tasoon ci daara ji rek bi eh, nga xam ne boo ko bàyyi noonu yi daanaka du mujj fenn ñu di ko woon delloo ma am ci ñaari kayit man ma ñaan ko sëñ Moustapha dama jël te eh, waxuma kamil rek de ndax mbind kamil moom yomb na ñu ko ñu ko ñu ko bind bari nañ surtout moom da ngay romb xale bu ndaw boo xam ne bii nii la toll mën na la mën na la mën ñu ne la bind na kaamil wala fii bisu fii bis mu ne nit di andi fi doomam ju ndaw yoo xam fukki at ak nangam rek naan man dafay jàng ba bind kaamil dem jàngi xam-xam am na ñooñu sax dañ xale yu ndaw indi lañ ma fii ñoom ñu fekk nañ fekk nañ ba tey ñu xale indil ma fii ay kaamil kon bind kaamil. yom yom yom yom yom yom yom yom yom mbindi ni yom yom yom yom yom yom yom yom yom yom yom yom Cheikh Fall Baye Góor boobu li ci ndax Modou Mbacké mi nga yoon ñu yoon bi ko xam moom wutu si Amadou Bamba ci jógee téye yoon wi doxal ko ci waxtu boo xam ne ñu bari sax dañoo jàppoon ne si Amadou Bamba bu fi jógee ak waxtu woowu ni mel tubaab yi yeeg seen i mbir ak si Amadou Bamba seen diggante tubaab yi defoon nañ ni bu suñ jógee rek yoon wi euh, dana rëng-rëngi wala sax day day tas sëñ Modou Moustapha Mbacké téye ko di ko doxal ba jébal ko suñu lu mu di ko doxal ba jox muy dox nii ba fii ci ñu gis ni mel di gën di di gën di kiimaane te day gën bu faaw nag léegi sëñ Modou Moustapha moomu mënoon mënoon na ko manin woo xam ne képp koo xam ne ki da ngay téye xalima ci ñi xam bind laa wax nag ñi nga xam ne dañ leen doon tudd ñu ndax fee bind ñu mel ni sëñ Demba Kébé ñu mel ni sëñ Moussa Alioune gi ñoom ñu mel ni sëñ Moussa sëñ sëñ sëñ ñoo ñëpp bind daan nañ ci def loo xam ne képp koo xam ne ki xam nga luy bind boo boo gisee seen këyit bu ñu bind rek sa sa àdduna yëpp day dafay dafay jaxle ci xalima liñ koy liñ koy doxale te ñoom ñëpp ak si woon ñu ñëwoon sëñ Modou Moustapha Mbacké ci ci ci ci DDW te mbindum sëñ Cheikh Fall Baye Góor moom ma lay wax dem naa ba këyit yooyu boobu may maa ngi toll ci mm, jàng bind xamaguma dëgg-dëgg araf euh, rafetaayam yu mel waaye këyit yooyu bi ma ko téye sëñ Modou Moustapha Mbacké itam ma ma njëkk bu dem Daaru Salaam nekk fa sëñ Moustapha Mbacke mi mu soxna Xadi Fatma moom it euh, soxna Xadi Fatma am naa ci téere sëñ Mourou Mbaye sëñ Mbaye ñu ci gaynde Fatma wala ci kër ga daal ci la ko jëlee ñu yón ko sëñ Moustapha ca foofu ci Daaru Salaam muy Jimbilang bi ma demee ba gis mbindum sëñ Modou Moussa mi nga xam ne yoon moo ci daxoon a bind wala adduna bi yëpp sax daan astaxfirullah ma adduna moom dafa yaatu tey daal mooy xam naa ne yoon wi daal moo ci ku ci meloon ni moom ci xalima bi ma ko méngalee mbindum sëñ Saaful Baye Góor benn lañ benn lañ xalima bi benn lañ waaw amul benn araf bu ñu bu ñu wuute nuñ koy bindee mbind moo xam ne mii dafay yaru nga xamne ne señ boko Modou Moussa boko boko ma sa gis day day sew boko sene ni waye waaye timé day reuy ndax li tax boko timé day reuy moy ben araf du gem lepp señ Modou Moussa bindam lu mu jégué jégué jégué jegee mën jël lañ ci dag dag dag seen digënté té dara du ci laal fenn ben araf du ma Rural Bindiwe on la mel noonu euh, euh, sëñ Cheikh Fall góor te bi ma ko gëstoo ba laaj ba laajte ko bu baax a baax a baax dañ ma ne mbind mi ni nga gis mu yaroog ni mu teeye nii ci këyit bi boo ko dee xool gaawaay baa ko rawoon waaw ndax nee ma sëñ Cheikh Fall Baye góor bu bu bu ma di bind kaamil ñaari dal lay dal day dal Baaqara dal Maryam ndax bu bindee xët wi daanaka buy buy àgg ca ca bind wu mujj wa day fekk daanaka bindu wa ci kaw du mu koy tooy te day yàkkamti mu jël amoon na xale boo xam ne loolu rek la daan liggéey kay xët bu noppi rek jox ko ko mu dem xaw ca naajo mu jël Maryam ci ci ci suuf jël ci teeri suuf bi bu bindee boobu bala bala bala jeex fekk këyit wow mu jël albati xam nga aw kayit bu tooyee ci doo ko mën a albati mu daal di jël daal di bind yóbbu xa ngóor si yóbbu bi ci noonu la moo tax kamilam daanaka bugg ko daan bind sax ay weer ak ay fan rek lay doon jërëjëf euh, jërëjëf di ko ñaanal bu baaxa baax mom sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Makalima akhlaq mom sëriñ Fallu mom Cheikhul khadim di ñaan sun borom doole ko fa yagal lool di ziar bu baaxa baax na di ziar mboolem njabotuk sëñ Fallu gi yëpp ko ci sëñ Abo comme ni nga ko mm. nga mu koy euh, lim lim ci mom mm. ci nga xam ne buntu bi moy sëñ Abo mi nga xam Cheikh Ibra ndax. sëñ Modou Moussa Fall xam nga ne moo jur waajuram bu jigéen ñi ngi ñaan suñu borom doole ko fa yàggal lool di ziar bu baax ak a sañ nag sëñ xabbaan tam moom xam naa mi ngi ñuy bàyyi xel fi ne saa su ne daf ñuy topp sëñ xabbaan moom soxna Adama Fall mhm. euh, moom moom itam moom sëriñ Fallu di ziar bu baax a baax soxna May Galas mhm. moom itam di jàmbar di di ko ñaanal bu baax suñu borom doolu ko fa yàggal di ziar bu baax mboolem njabootu sëriñ bi yépp nag ndax bu fàtte na ba tey sëriñ bi pas-pas bii mu am ci maam Cheikh Ibrahima Fall mboolem njabootu boppam gi sax pas-pas boobu la am ci moom sëñ Galas firndeli ci sëñ Galas eh, moom sëñ Abdou Karim sëñ Baara moom itam Eh, bu yàggul rek ay jamono mi ngi woon fii ci Ndakaaru ci jëwriñ sëñ Abdourahmane Ndaw doon fa eh, jàng ci daara ji foofu Daaru Rahman sunu turasool sëñ Baara du sunu wëlëre du sunu xarit depuis tout tànk ba léegi mhm. di ko ñaan baax sunu borom doon ko fa yàggal mboolem njaboot gi yëpp na noonu la ñuy ziaree Euh, waa kër gi yëpp fàttiwuñ kenn ku mel ne Baye Sëwru xam naa mi ah. ngi ñuy bàyyi xel Baye Sëwru faal bokk ci waa kër sëriñ bi nekk foofu ci kër ga sëñ Xaadim Ndaw sama dooyu Baye sëñ Ale Touré sëñ Balla Touré ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar baax sunu mm-hmm. tante soxna Naar Sàll euh, moom it nekk fii ci Géejawaay bokk ci waa kër sëñ Abdou Karim waaye tamit soxna Nday Ndaw sunu xalifa doomi sëñ Amdi Ndaw mi ngi ca Mbàkke moo yor daayira sëñ Karim bi nekk foofu ci Mbàkke moom it jàmbaar fi ne nii mi ngi jënd crédit sax toog di xaar moom mm-hmm. ku bëgg sëriñ Abdou Karim ndeysaan soxna sunu xumma fàttiwuñ ko ñoom it ñu ngi koy ziar bu baax a baax soxna Awa Sàll nekk fii ci eh, Géejawaay moom itam di ku bëgg sëriñ Abdou Karim defe naa daal eh, sëriñ Abdou Karim daal dafa fees ci xol yi ndax Cheikh Ibra Fall ji rek xam nga moom naka jekk ñëpp boo wax mu ne ñu ne la <laughs> te loolu lay dund ñi ngi ñaan suñu borom doole ko fi yàggal signal du ñàkk xam naa amiin amiin bala ñu jëm ci ligne bi bala ñoo jëm ci ligne bi ndax euh, ni nga ko waxee rek mboolem fédération mhm. daayira makaarimal axlaaq yi fu ñu mën di nekk rek si biir Sénégal ak si biti réew mhm. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax si turu euh, sëñ bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool mhm. mbakki te ànd ak wér mbooloo mhm. mbokk yi way seetaan it war nañoo ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak ndax nag euh, mat na ko ndax euh, bëggam sëriñ tubaa waaye bëggam maam Cheikh Ibrahima Fall te kàddu yi mu yëkkati rek firnd na ko te nag sëñ Mamour am na si ñaari kilifa yu ma wax diggante démb ak tey ni ma gis nga moom sëñ Abdou Karim mii ci wàllu mbind mhm. ci kilifa yi ñu fi tudd nii bokk na si ñu si gën a rafet xalim mhm. moom ñaari kilifa seereel nag moo tax soo déggee ni mu waxee rek nga xam ni wax dëgg mhm. yàlla moom daal nu ngi koy ziar te di ko ñaanal baax a baax waaye waa fédération makaarimal laax bi nekk euh, diggante golf fiit mi jàpp géejawaay mhm. di si ziar bu baax suñu bàyyi sëriñ tubaa Sène mhm. ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak mboolem fédération bi mhm. waaye soxna Mintu Thiam mi nga xamante ne moom mooy kon euh, jëwriñu daayira rafetal moom jëwriñ soxna Mintu Thiam nga xamante ni sëñ bi moo ko sampal tuddal ko daayira bi daayira rafetal muy dund sëñ Abdou Karim ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax waaye di ziar bu baax a baax kon ku si mel ni euh, soxna Seynabou Thiam Baye Fall soxna Maam Diarra Cissé ñun Baye Fall yi xam nga sëñ Cheikh Lo xam nga si daayira boobu la bokk waaye ku si mel ni kon sëriñ Idrissa Diop mhm. sëriñ Badara Baro mhm. maa ibnu Samb ñooñu nga xamante ni jotaay bi la ñuy bàyyi xel bu baax a bàyyi Xalifa mhm. Fall maa jox duñ ko fàtte xam naa ne jamono ji mu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax soxna May Galas wax nga ko sànq waaye Aroona Kumando Feen moom xam nga nii day dund jotaay bi te di ko bàyyi xel saa su ne ñu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla di ziar bu baax a baax kuy dund jotaay bi la wax dëgg yàlla nu ngi koy mm-hmm. ziaw bu baax a mm-hmm. baax eh, di ziaw bu baax sëriñ Galas Mbàkke mm-hmm. moom sëñ Xaadim Mbàkke moom eh, sëñ Ibrahima Mbàkke eh, moom Cheikhul Xadim xam nga ni sa sëñ Assane bu jëlee large bi sax nga xam ni lii nii nga xamante ne moom lañ sol mu yànj lool wax dëgg yàlla moom moo ko def sëñ Galas di ko ñaanal <laughs> lool mu yànj fi lool daa dëgër wax dëgg yàlla te moom Cheikh Ibrahima ba wër lay dund moom ak sëñ Baari Mbàkke ni mu ak mbooleem njabootu ko tàmbale ko sëñ Dam Atta di ziaw bu baax baax a baax nag sëñ Lamp Fall euh, broderie euh, Lamp Fall broderie di sëñ Xaadim Njaay mi nga xamante ne moom moo ñaw ñaw bi mhm. xam naa ni sax léegi-léegi incha allah kii bi dina jàll mhm. euh, lu jëm ci waxtaan waaye nag sëñ sox soxna Ndey nday caw mhm. bëgg falu mhm. sànq dafay indi xéewal bu am solo wax mhm. dëgg yàlla wax yàlla di ko ziar bu baax a baax waaye soxna Kiné mbay ñi nga xamante ni mag la si soxna Aminta Mbaye Gaye bi fi nekk ñu ngi koy ziar ak soxna Adja Soda Marème Mbaye moom nekk parcelle di eh, mag soxna Aminta Mbaye di ziar bu baax sëñ Omar Ba nekk parcelle unité di taalibe sëñ Fallum sëñ sëñ sëñ Fallu Fatikan moom it ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax waaw sëñ Njoogu Seck moom it di rek si sëñ Ibrahima Guèye di bàyyi xel jotaay bi nekk HLM 5 taalibe sëñ Fallu Fatikan Mhm. soxna Ndata Diop. Mhm. moom di soxna sa kon sëñ Omar Ba mi ñu ngi koy ziar bu baax. di moom soppee jës bul murit bu wër. Mhm. Eh, sëñ Mamour daal eh, jotaay baa ngi nii am na solo lool. kaddu sëñ Abdou Karim mbakke Fallilu yi am na lu mu defaat si xol yi bu baax a baax ñu koy ñaanal lool mu yàgg fi la te wér ñàkkul ni mbokk yi sax ku si dugg ñàkkul ni di nga mën a dellu siwaat si jotaay bi riche bi mu ak am solo bi mu solo ndax ñëpp xam nañ ni sëñ Abdou Karim Fallilu Baye Fall bu wër a wër wax dëgg yàlla di si jeex sëñ Basiru Baara ndax mënuñoo wax loolu te tuddaale wuñ yàlla di jeexaale bu baax a baax sëñ Moussa Mbacke Gaynde Fall waaw waaw ndeysaan ak sëñ Fallu Gay ñu ngi leen di ziar bu baax a baax jërëjëf di ziar bu baax mbokki Touba yëpp xam ñu ngi ñuy bàyyi xel sa su ne ñoom itam sëñ Mbacke Ñang doomi soxna May Galas nekk foofu ci sëriñ bi ñu ngi koy ziar yàpp sa yaf sa moom bu ma ko tuddee Baye Fall xam nañ ko moom itam ku bëgg Serigne Abdou Karim ñoom ñëpp ñu ngi leen di ak mboolem taalibe Serigne bi yëpp nag mm. euh, ah, moom fu mu la gisee rek jox lay dàll na la barkeeloo ko xam naa insha allah moom suuf yëg na li muy def ndax comme que ñu ngi dox ci kawam te Cheikh ne woon na maay suuf wax leen ak man ñu ngi ñaan suñu borom kàttanal ko baax a baax a baax di ziar ñëpp nag 88 628 19 07 bu fekkee ne am na mbokk yi taxaw euh, ngir bëgg a barkeelu ci jotaay bi barkeelu ci jotaay bi sëñ Abdou Karim bi tey yi nga xam ne euh, lépp Cheikh Ibra rek la tey defe naa xol yëpp toyaat mais gën nañoo xam ne njabootu sëriñ bi bisimilah mbokk mi salaamaaleykum waaw ah, bisimilah wàññi da ngay wàññi bi te déglu ci téléphone bi bi waaw kooku ah ok sëñ Maguette ñu ngi ziar baax a baax. waaw ah, ah, sëñ Maguette Dieng géej waay waaw géej ah, ñu ngi lay baax <laughs> baax wax dëgg yàlla. ndeysaan. Mhm. tey rafet émission bu baax baax. ndax mhm, mhm. moom dañ ko war a kenn. ndeysaan. yaakaar ku déglu jëm jëm ji tedd yi ngeen ne moom ngeen teg bi si Abdou Karim. li mu wax lépp nga xam ne moom suñ tubaab rek mooy Serapha. ndeysaan. kon nag sotti rek des rek baax. kon nag ñun murid ñoo si war am am jàngat te xam ne moom sëñ Tuubaa Sëriñ Faal bu ma yemal leen ndeysaan nga xam ñoom ñu benn jëmukaay yoon benn jëmukaay yoon noonu mm-hmm. boo gisee yoon li ñu doxoon mooy lépp bu tey si bu baax rek mm-hmm. naan dañ naan Cheikh Cheikh Ibra ndeysaan parce kon ñu ñaan baax suñu borom jàpp ba doon ñu ko fayal amiin te yéen ñu leen doole ñaanal baax wax yàlla amiin émission bi daa am muy jàngale. ndax mhm. kuy am na loo am na loo si war a mën a jàngale. ndeysaan ndax ndax seen seen seen seen seen toogaay. Mhm. ak seen kàddu yu rafet yi xam ngeen koo dégg mën ko jëriñoo. Mhm. loolu moom ñu leen si ñaar baax yàgg na su ma dafa baax baax. amiin xam ñoom kàddu mbéyte kàddu cant rek. ndeysaan dañ baax suñu tubaab taxu leen. su ma dafa baax baax. amiin ak si Aliou Mbadou Nioro ak képp ku nekk ba mu baax baax jërëjëf am kaddu yi rek dafay waaye sant nañu baax a baax na wax dëgg yàlla jërëjëf tuwarkal sëñ Maguette ziare ñu waa Géejawaay yëpp tuwarkal 88 628 19 33 820 52 81 bisimilah bisimilah mbokk mi asalaamaaleykum waaleykum salaam wàññi ndax na Abdou Lahad Sène wàññil télé bi te déglu ci téléphone bi sëñ Abdou Lahad Sène waaw sori naa jërëjëf Sène waa kay ok Abdou Lahad Sène la waa kay jërëjëf kuréel xasaayid Cheikh Abdoul Karim Makarima Akhlaq ah ndeysaan cey ah ñu ngi bëggaat si yéen bu baax a baax a baax a baax tubaarkalla tubaarkalla tey kat da ngay indi jàmbaari Cheikh Rafal ndeysaan waaw muy ki xam ne mhm. wax dëgg yàlla bu gëm Cheikh Rafaal ñun de ñun ñun ñi nga xam ne moom ay taalibeem loolu xam nañ ko si moom. ndeysaan. <laughs> loolu sëñ Alioune Badara wax léegi tamit si wàllum bind. waaw. lu lu lu dëggu la lu am lu dëggoo dëggu dëgg la. ndeysaan. waaw ah, lu lu lu dëgg la. ku ku gis bindam bi nga xam ne moom bokk na si bind. ndeysaan. waaw waaw ñu ñu ngi leen ñu ngi leen di bégewaat baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf yàlla. Euh, suñ suñ wootee suñ xol day sedd lool ndeysaan jërëjëf daanaka woote moom mosuñu ko def tey lañ koy door a def ndeysaan jërëjëf ndax ñu def ko nag mooy mooy suñ sëñ boobu ngeen di woote ngeen ngeen ngeen tegoon mm-hmm. waaye terewul tamit wax dëgg yàlla yeneen émission yi fi mu ngeen fi mës a def yépp am na solo ndeysaan am na solo lool dañ leen bëggee lool seen jëm yi suñ ko gisee rek dañuy dañuy lool jërëjëf ndax mi nga xam ne moom ngeen moom ngeen ndeysaan ah, waaw sama way jur Adja Faale mi ngi mhm. di taalibe si am di këram nee na mi ngi béggewaat jotaay bu baax ndeysaan siyaareel ñu ko bu baax xolam moo sedd ba munta woote waaye ñu ngi siy bégg bu baax a baax a baax ndeysaan baax yéen daal na ngeen xam ne ñu ngi leen di bégg baax di leen ñaanal ndeysaan mhm. ngeen gudd fan mhm. amiin wér gu yaram di ñaan euh, ñi nga xam ne mooy euh, wàllum sponsor yooyu nañ ñëw xam ne fii fii fii fii la fii mooy mbir mi daal. ndeysaan jërëjëf. waaw moom ñu leen koy ñaanal baax. ñu ngi leen ñu ngi lay dégg. Ah, man na ko de. man na jombut gaa lay dégg jërëjëf. waaw kon alhamdulilah. waa kay jërëjëf. yal nañ ñëw ndax fii ay njëriñ la. waa jërëjëf jërëjëf. jërë ngeen sant nañu baax baax baax. ndeysaan jaajëf alhamdulilah. waaw kay jërëjëf. Euh, di ko ziar bu baax a baax di ziar mboole mbokk yi nga xam ne Euh, ñu ngi bàyyi xel jotaay bi 88 628 19 07 salaamaaleykum. waaw bisimilah. bisimilah. yëkkatil kàddu bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ah sëñ Maama. waaw soxna Ndeye. sama kooku sama xalifa. <laughs> Ah, di jël nuyoo sëñ Amdi Ndaw nag teg ko ci sa loxo. waaw ak mboolem njabootu Baye Cheikh Ndaw gi yëpp. ak njabootu sëñ Babacar Ndaw gi yëpp. dëgg la. ok kontaan bu baax ba wax sax munuma ko wër na sëñ Touba sama xol bi daa mel ni galaas ndaw. ah ndeysaan jërëjëf ndaw. maa ngi leen di siyaar di di siyaar alaaji kii moom. Aliou ci kër gi. ndeysaan jërëjëf. lu ngeen mën ren bu déwénee ngeen mën lu ko. amiin amiin lool. amiin. ndegam li ngeen wax nag ci Serap dafa sedd sama xol. ndeysaan. ndax Serap day lépp ci sama maam Cheikh Ndaw. waaw tey. ndax lu ne ci sama maam Ndaw rek mhm. moo ne ci lu ne ci Seera Faal rek moo ne ci sama maam Cheikh Ndaw. waaw ndeysaan. mu doon lu rëy nag ñun tam suñu lépp Seera Faal la. ndeysaan jërëjëf. moo tax tey bu ma delloo ci du Abdou Karim Mbacke. Mhm. sama xol bi dafa gën a sedd. ndeysaan. ndax sëñ Fallou la woon rek ak sëñ Cheikh Ndaw. waaw loolu de wér na. waaw kon nag bu ma yoree liggéeyam di ko liggéeyal fii ci Mbacke. Mhm. sama xol day sedd lool muy fanam yàlla na diw doy ndeysaan jërëjëf yàlla na gudd fan ak njabootam mboolem ku mu bokkal sëñ Touba ndeysaan jërëjëf di ko siyaar bu baax moom sëñ Abdou Karim Mbacke moom jërëjëf jërëjëf ndax bëgg nañu mhm. yiir nañu aar nañu teg nañu palaas mhm. ngan gu rëy lañuy defal fii ci mbaat Mbacke ngir suñ jëmm ju ndaw ji rek ndeysaan jërëjëf te lépp nag lu ko lu sama doom ji góor ñuy Mamar Ñang mhm. jëwrin Mamar ndeysaan jërëjëf ah, ndeysaan soxna Ndeye di ko ziyaar bu baax di ziyaar njabootu Baye Cheikh Ndaw képp yëpp rek ñu tuddee sëñ am bi rek eh, waaw bismillah xaar ma jox la ma damaa bëgg yi kat mu xaw a yaat sama jëwrin ma mat waaw daa ñëwoon ci yëf yi pour mu siyaare leen moom it eh, waaw bismillah waaw mhm. kay jëwrin mhm. ñu ngi lay ziar bu baax waa kay jaajëf jaajëf bàyyi na am tawfeex. ñu sant bu baax kay. waaw bëgg nañ si émission bi lool de. ah ndeysaan jërëjëf. wax dëgg yàlla am nañ si mbégte bu baax a baax nag. waaw waaw ndeysaan. ndax euh, daanaka ñun amuñu lu dul sëriñ bi. waaw ndeysaan. te seriñ bi daal maanaam moom lépp chèvre la. ndeysaan jërëjëf. te daan daan daanaka li dafa maam Serigne Fall daal mooy lépp. ndeysaan jërëjëf kon daal dañoo bëgg tamit ngeen yokk ñu ko gën a ñaanal ñaanal bu baax a baax. ndeysaan jërëjëf. maam am fanam gudd bu wér. amiin barke maam Cheikh. ndeysaan jërëjëf soxna ndey Ndaw di ko ziar bu baax di ziar suñu maam Serigne Badara Ndaw xalifab sëñ Babacar Ndaw ci Touba Guy Ndawen mhm. di ziar njaboot gi yëpp nag fàttewuñ Serigne Maodo Ndaw sëñ Assane Ndaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax 88 628 19 07 bismillah allo waaw bismillah bismillah mbokk bi da ngay diglu ci téléphone bi te wàññi télé bi déggante wuñ signalé. ku woote ku woote mu mën a wàññi teleem rek. ndax mhm. xam nga mbokk yi moom yéen a dëgg la ñuy dawal. waaye faaw ngir wax ji mën a eh, eh, déggante bi gën a neex. xaw mhm. ñu wàññi tele wala ñu xaw ko. asalaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam. Mhm. kooku. man la maam Diarra Kama bu Dalifor. ah soxna maam Kama ana waa Dalifor. ñu ngi fi ñu ngi ci jàmm. tubaarkalla alhamdulilah. tey de dañoo bég moom. ndeysaan. ndax euh, ki ngeen indi tey ci bés bi mhm. léppam day Cheikh Ibrahima Fall ndeysaan wane na ko de ñun waa Dalifort moom kontaan nañ bu baax ndeysaan mhm. ndax sëñ Abdou Karim dafa am fu nekk ci suñu xol yi ndeysaan mhm. kontaan nañ torop torop torop ndeysaan jërëjëf du ngeen mës a tegati bés bu ala daw mee nii comme bés bi. <laughs> ndeysaan tey kay lépp <laughs> sëñ Fallou Cheikh la xam nga sëñ Fallou Cheikh moom. bàyyi mbéykat daf may nettali bañ dajee ci xuru Mbàkke. na ma booba ndeysaan say nopp doom loolu ba Cheikh mujjee def ca laa bopp. waaye keroog la Cheikh wax lu leer la. bisimilah mbokk bi. Mm-hmm. salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi kooku. kontaan ba mënumaa wax rek soxna maam say ba ah tur tubaakalla ba waaw waaw ba gis nañu Abdou moomu lool ndeysaan am nday maam Cheikh Ibrahima Fall moomu lañ ma tuddee maam bu Ndiaye ah ndeysaan ci am nga ne man maam Cheikh rek laa laa nooyee ah, waaw waaw kay sëñ Abdou Karim nag moom dama ko bëgg ba bi bi mu génnee léegi ànduma sama sago ndeysaan parce que sëñ Touba rek laa bëgg ndeysaan jërëjëf yal na yàlla guddal seen fan yéen ñi man sama xol bi daa fees ba mënu maa wax jërëjëf jërëjëf billaahi dinañ ñaaxal fan wu gudd bi toujours dama ciy kontaan heure bu ngeen tàmbalee rek damay toog ba ngeen jeexal ndeysaan jërëjëf billaahi yal na yàlla guddal fan yi amiin barke maam Cheikh amiin yal na ngeen fi yàgg lool may ñaanal Baye Karim moomu yal na yàgg yal fi yàgg lool te wér ndeysaan tubarkàlla mboolem ku seen fàllu jur Mhm. njabootu sëñ Touba yëpp maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér. ndeysaan tubarkalla jërëjëf. am nañ ko yàgg lool te wér ci barke sëñ Touba. jërëjëf jërëjëf di ñaanal ci fi toogal sëñ Touba muy sëñ Sidi Muxtaar mu yàgg fi lool mhm. na ko mu yàgg ndeysaan sëñ Aliou Thioune tubarkalla ñaan gi nangu na. waaw sunu borom yàggal ko fi lool ndeysaan. 88 628 19 07 su fekkee ne ba tey am na mbokk yi taxaw ci ligne bi bismillah

ak sëñ Tuubaa suñu xel suñu suñu xol dafa sedd lool wax dëgg yàlla. ndeysaan. Mhm. dañoo seetaan émission bi mu yëngal ñu lool wax dëgg yàlla tëddoon nañu waaye dañoo jug wuti kër yi. ndeysaan. <laughs> pour bëgg a woote ndaxte. Mhm. Cheikh Ibra Fall moom maanaam ñëpp ko bokk. ndeysaan. Mhm. jullit ñëpp ñoo bokk Cheikh Ibra. ndaxte li mu jàngale muy murit muy tijaan muy xaadar. muy ñëpp ci jariñu ndax ku xool seen toogaay yi yar ak teggin la Cheikh Ibra daan daan digle. moom la fi bàyyi. képp koo xamante ni nii Baye Fall pire nga ci yar ak teggin ngay dox. ndeysaan. Cheikh Abdou Karim nag li mu wax ñëpp dégg nañ ko rafetlu nañ ko lool di ko ñaanal mu yàgg ko lool. te wér ci barkeb sëñ Touba ndax ku bëgg Cheikh Ibra Fall la. Mhm. yàlla na yàlla may ko fanu gudd lool te wér ci barke Cheikh Ibra Fall moom kay sëñ bi na romb ati Baye Cheikh Tall Galo yo rek képp kuy diglu sama kàddu gi maa ngi ñaan <laughs> nga ñaanal si Abdou Karim mu yàgg fi lool <laughs> képp koo wax yàlla na nga fi yàgg te wér maa ngi siyaare sama sëriñ sama sëriñu bopp muy sëriñ Galas moom Serigne Cheikh Daara man ndax moom Baye Fall pire la waaw ah, sëñ ndeysaan tubaarkalla waaw dafa bëgg di ko ziar bu baax sëñ Abdou Salam ak sëñ Abdou mu ngay minu ñoom ñëpp ñu leen di ziar ñoom bu baax a baax a baax sëñ Abdou Salam bu baax a baax ak noonu ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di ñaanal sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke mu yàgg fi lool te wér amiin barke maam Cheikh amiin mboolem njabootu sëñ Touba ñu yàgg fi lool te wér amiin amiin amiin di sama sang ba sëriñ Cheikh daa xamaan mu mu yàgg fi lool te wér da ngeen ko moom tubarkalla amiin mu yàgg ndax sago yoonu murid la moom wallaay wallaay barke ngeen jëf yal na leen yàlla fay ci barke sëñ sëñ Touba jërëjëf jërëjëf siyaare jërë yàlla fay ci barke amiin ñu fay ci barke fi ñu fal dafa lool suñu fal dafa sedd lool tubarkalla jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf di ziar daayira auditeurs yëpp nag eh, waaw ñu ngi leen di ziar ak daayira taximaan yi sëñ Seck Mbuub xam nga moom du ko tardé ak mboolem auditeurs yi yëpp ñu ngi leen di ziar baax a baax a baax soxna Mariam Mbaye soxna Maam Fatou Gueye caatu mm. lamp ñoom ñu ngi leen di ziar bismillah mbokk mi sëñ Lamp Thiaw duñ ko fàtte mm. Mm. salaamaaleykum waaw salaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi ziar bu yàlla na yàlla nangu ziar mbokk mi waaw ñu ngi woote ndax may jàkkaarloog yéen di leen seetaan bu wér. waaw yëkkatil kàddu gi tuuti. ma ne ñu ngi wootee Bambey Bambey lan nekk. ah Bambey waaw mhm. waaw. kontaan nañ ci émission bi lool de. ndeysaan bu wér a wér a wér la. ndeysaan. Mhm. di nga xamal ne moom xam na kan mooy Cheikh ba Cheikh Ibra li mu ne murit moom bala ngaa doonu Baye Fall dëgg da ngay doon murit sa def moom. Mhm. ndeysaan. <laughs> waaye nag ñu ngi doolee sant bu baax tey am yaakaar lool. ndeysaan di kontaan lool ci télé bi tamit. tey jërëjëf. ndax bu télé bi ubbee ba léegi de wax dëgg yàlla ay ndaw lan waaye am nañ ci kontaan bu wér a wér a wér ndeysaan ndax daanaka ñu ngi sos daanaka ñoo bokk dëkk baaxul muy famille Cuune la ndeysaan waaye nag ñun lii di leen ñaanal ñu ngi jàkkaarloo yéen ñii di leen seetaan di am kontaan te ñu gis bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. ñu ngeen xamal ne daal ñoom Cheikh Ibrahima daal bu ñu sañoon daal ñu gën koo yaatal lool ndax suñu xolal tooy si ñun. ndeysaan. ñu ngi leen di doole ñaanal di leen sant bu baax nag. am na si solo loolu sëñ Mamour wax dëgg yàlla ndeysaan tabarkàlla sëñ Aliou Badara am na solo ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf mu ngi jéem nee na boobu ba léegi ngir dugg si ligne bi ah, ñu koy ziar bu baax ndax moom jotaay bee ko ñor saa su ne dana ñëw nag incha allah dina ñëw mu ñuy topp na waajal jotaay na waajal jotaay waaw bisimilah mbokk mi asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam ñu ngi leen di siyaare waaw sëñ bi tuuti rek ñu ngi indi siyaare bu baax a baax. waaw kooku. ñu bu baax a baax a baax di rafetlu waxtaan bi. waaw kay sëñ bi yëglu mooy kan ci mbokk taalibe bi. <laughs> bal ñu baaxee ñu tur bi sëñ bi ak fooy wootee. Euh, maam Cheikh Mbaye Ndiaye. ah maam Cheikh Mbaye Ndiaye. ah ñu ngi lay baax Mbaye ñu ngi ziar bu baax. Mhm. ñu ngi rafetlu waxtaan wi. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi rafetlu waxtaan bi bu baax a baax a baax a baax. ndeysaan jërëjëf. maanaam danoo nekkoon ci sunu uh, liggéeyukaay yi. ñu mm-hmm. maam tegoon fa benn uh, waxtaanu maam Seye Rayo Fall léegi nag bii waxtaan wi jeexee ñu ñëw ci télé bi fekkaat fi waxtaanu maam Seye Rayo Fall daa mel ne dégguñu bu baax te mel na ne li may wax am na solo. <laughs> wala su fekkee ne suñu technicien mi ngi dégg mu yokkal ñu kàddu bi tuuti. Mm-hmm. waaw. ñu rafet rafetlu waxtaan bu baax a baax a baax. waaw bisimilah waaw yëkkatil kàddu gi tuuti. waaw may damaa nekkoon ci sama liggéeyukaay. waaw. doon fa déglu waxtaanu maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. waxtaan wi jeexee. Mm-hmm. ma daal di. Ah, ah. doon na doon na. am solo wax dëgg yàlla. waaw waaye bu ma ne duggaat rek mu mu duggaat. wala su fekkee lu mu bëggoon a xam mu woote ci suuf. waaw. Mm-hmm. jëwriñ Abdourahmane Daaru Rahman sunnatu rasul nu ngi koy ziar bu baax a baax asalaamaaleykum bisimilah mbokk mi maaleykum salaam sëñ bi na ngeen def sant Serigne Touba bu baax ah ñoo ngi kontaan bu baax ci wane bi ngeen wane suñu sëriñ boobu sëñ Abdou Karim ah ndeysaan moom moom gannaaw yàlla ak yonent bi moom la ñuy yaakaar àdduna ak àllaaxira ndeysaan tur bi naka la te mu dimbalu ñu lool défar ñu lool. ndaysan mhm. waaw man mi woote nak borom la nak taam moy sama borom ci suñu jàll. ah sant bu baax nak diko ñaanal mu yàgg fi lool te and ak wér. dañu contane torop man mom non tàmm ma di wote ci télé sax mais dal señ bi jaral nañu ko lool. ndaysan ñu leen ñaanal nak ngeen gudd fan and ak wér. ci yàgg taxawal ma amin maam Cheikh Fall. kontaan nañ bu baax jërëjëf. jërëjëf ndeysaan jërëjëf. 88 628 19 07 88 628 19 07 bismillah mbokk mi salaamaaleykum waaw maa ngi ziar bu baax nangu ziar yalla ngi ziar bi de tubaarkàlla kooku tour bi maa ngi mooy sekk ko tu maraqib ah tubaarkàlla ana wa maraqib al dañu fa ak ok ziaré melen bu baax baax waa Kóor Salaamaaleykum xaw ma daal di rafetlu. ah ndeysaan ci. Daara de Touba ji mhm. Gueye bu baax na. jërëjëf jërëjëf. ah dama teg di teew teewu jotaay bi dugg nag di siyaar rek. ndeysaan jërëjëf. waaw yaa ngi si Aliou kat doon dim moom yéen ñaar ku moom day ñu ngi leen di bu baax. daa mel dafa. génnaat ndeysaan 88 628 19 07 sëñ Ibrahima Ndiaye HLM Paris nu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla <laughs> bismillah bismillah mbokk mi salaamaaleykum waaleykum salaam salaamaaleykum ñu ngi leen di salaam bismillah bismillah wàññi wàññil télé bi te diggu ci téléphone bi. soxna bu dëkk Mbacke. ah ndeysaan ñu ngi ziar bu baax. yal na yàlla na mu si aar. ndeysaan jërëjëf. kontaan nañ ci waxtaan wi lool wax dëgg yàlla. ah ndeysaan jaajëf. nekk ay taalibe rek taalibe Sëñ Tuuba ak Cheikh Ibra Fall. ndeysaan jërëjëf. ñu ñaan yàlla yàggal leen fi. ndeysaan amiin barke Cheikh amiin amiin. yàggal fi sëriñ bi ci waxtaan wu neex yu mu waxtaan ci Cheikh Ibra. amiin amiin amiin. leen di sant di leen gërëm. ndeysaan jërëjëf. seen yàlla na ko yàlla ak sëñ Tuubaa yëkkati ba mu toll ne sooroon. amiin amiin amiin amiin amiin. suñu xol sedd na ci rekk la ñuy di ko seetaan. yal na yàlla saxal leen saxal sëriñ bi yëpp mboolem waa kër sëriñ Touba ñi amiin amiin ak taalibe yeeg ñëpp leen fi yàlla saxal amiin amiin ba sax amiin amiin ci daraja borom Touba jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërë leen jëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, kooku moo doon ki mujj ci ligne bi euh, di ziar bu baax ñi amone yene yi tàbbi ci jotay bi te xëy na borom dogal ñu tabbi si melna ni ñepp rek tabbi nañ ndax ñi ngi ñu top saa su ne gis nga ma sha allah ñi ñene lool te waxtaan yu tabbi eh, ni mel ci seen xol firndel li firndel li gis nga ko aduna mm-hmm. bepp ko gisando mm-hmm. ku dugg ku nekk rek ben wax bi la mm-hmm. eh, waaye di do lay ñaanal baax señ Abdou Karim mu yagg fi do lay ziar bu baax ba señ jaaji taal itam di ñaanal gis nga pas-pas bi muy waxe ci Cheikh Ibrahima moom itam ma sha allah di ziar baax baax mboolem ñi nga xamne ñi ñu doon topp saa su ne. Uh-huh. Euh, boobaak léegi dañuy bàyyi xel télévision bi di bàyyi xel waxtaan yi ak ñi nga xam dañuy ba bambay fu ne nit ñaa ngi fa di topp jotaay bi sëñ Aliou. ndeysaan sëñ Saliou Samb. Uh-huh. moom it di kenn si sëriñ Abdou Karim Mbacké uh-huh. nu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla. di si ziaraale bu baax soxna Binto Diallo Thiès ñoom ñëpp ñu ngi doon jéem a dugg. jëwriñ Abdourahmane Ndaw ñu ngi koy ziar bu baax a baax daaru rahman sunnatu rasul mu ngi bàyyi xel jotaay bu baax a baax sëñ ibrahima ndiaye HLM Paris waaye fàttewuñ soxna Maguette Fall eh, sëñ Assane Baye Fall fàttewuñ leen ñoom Serigne Fall ñoom eh, Serigne Cheikh Diop mm-hmm. ñoom sox eh, sëñ Maxu Mbay ñoom mbooleem daayira bi rek wuñ kenn mm-hmm. alaaji as alaaji Mbay fàtte wuñ ko mm-hmm. benn yoon sëñ Jili Ndiaye nekk si rajo bi fii taalibi sëñ Abdou Karim soxna Ami Cissé taalibi sëñ Abdou Karim Karim taalibi sëñ Abdou Karim fàttewuñ ko Serigne Touba Sène ni ma ko waxee di jëwriñu Serigne Abdou Karim di kenn ci moom léegi mu ngi jéem ndeysaan pour pour pour tàbbi si jotaay bi mook soxna Mindu Caam ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax mhm. waaye sëñ Mamour mhm. euh, di di di di beral nuyoo ak ziar mhm. sunu bàyyi Malick Ndiaye moom Baye Mor Ndiaye tomb del di ñaan nag mboolem ñiy teewlu télé bi di ñaan ñuy ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di xam leen ni Serigne Abdou Karim Mbakke borom Makarimul Axlaaq maanaam euh, euh, dégg nga li mu wax nee na lii kat Mm-hmm. ñu bëri bëggoon nañ ko. Mm-hmm. waaye nag yéen moom. Mm-hmm. Eh, ci li ngeen ki ngeen ma woo moo tax. muy Cheikh Ibrahima kon nag pas pasam si Cheikh Ibrahima. ak li nga xamante ne moom la mel si Cheikh Ibrahima macha macha allah yàlla na suñu borom jàggal ko fi lu lool te mu ànd ak ndax nag moom foo ko tuddee rek. ñu xam ni moom si Cheikh Ibrahima la bokk. zahiran baati baatinan ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax mucc. mu mu mu mucc si ndog mm-hmm. te farub ndog ni ko maam ah, Cheikh Ibrahima Fall doon doon doon doon ñaanale ak ak mboolem fédération Makarimal Akhlaq yi lii moom mënu mm-hmm. euh, woon ñàkk ngir nit ñi mm-hmm. feeñal seen yéene ci jëmm ju tedd ji ndax nag ni mu def maam Cheikh Ibrahima Fall euh, te it euh, loolu moom yaakaar naa ni képp ku ne moom moo la war ndax nag wax dëgg yàlla Cheikh Ibrahima moom moo wane naka la kon wax dëgg yàlla képp ku ko teg fenn rek xam nañ ni noonu rek la mën a demee di di di li nga ko waxee woon sànq Arouna lu ko mën doo fen xam naa ni nu ngi koy waajalu jotaay mhm. ndax it euh, euh, dëgg la ndombol tànk waaye te ku ku ab bayfal la te Cheikh Ibra lay dund te mu ngi koy gëstu bu baax a baax euh, xam xam si lu bare wax dëgg yàlla mhm. Serigne Fallou gay duñ ko mhm. fàtte benn yoon moom it ak Serigne Moustapha Mbacke Gaye na faat mu Serigne Maodo di ziar bu baax waa daayira Jazbul Murid xam nga ne aju bi ji di ñëw dañuy kuure mbaar mi ñoom itam ñi ngi waajal bu baax a baax ñu ngi ci daara ji waaw Serigne Modou Fall Serigne Khadim Fall ñu ñëpp fàtte leen hmm. aju bi ji di ñëw incha allah la ñuy kuule mbaar mi Eh, di sàkku rek comme ni ñu ko daan sàkko ci murit yëpp nag ñu taxaw liggéey boobu te jàpp ci mm. eh, di ziar bu baax mbooleem ñi nga xam ne saa su ne ñu ngi topp ci Touba xam nga Baye Serigne Sarr mm. nekk foofu ci eh, centre commercial Sëñ Fallou mm. d'ailleurs ndeysaan Ablaye Ndaw Ablaye moom mi ngi koy jaaw bu baax a baax dëgg ah, yàlla Cheikh Baye Fall ñaan duñ <laughs> ko fàtte benn yoon Boy Diagne ñoom it ñu ngi fi ak sëñ Aali Diagne sëñ Jili Diagne euh, waaw soxna Fatou Diagne xam nga moom itam kara Touba bi tubaarkàlla soxna Ami Diagne euh, kon si sëñ sëñ sëñ Galas Mbàkke waaw moom sëñ Ibrahima Mbàkke moom sëñ Xaadim Mbàkke moom <laughs> sëñ Ibrahima Mbàkke moom def mm-hmm. ndeysaan euh, bëgg Cheikh Ibrahima ak taxawuñu moo tax mm-hmm. gis nga mu des ñu ngi bàyyi xel. ñu ngi bàyyi xel waaw ku mel ne Lam Fall Couture Ngañ Fall moom it xam naa ne. kon loolu day wane ni ñoom ci liggéey bi lañ bokk ngi waajalaat yeneen waaw mi ngi waajalaat yeneen waaw ak ngañ bi tey. ndeysaan waaw Lamfal broderie euh, di di di sëñ Xaadim Ndiaye. 77 504 33 69. 77 985 07 74 xam nga ni moom moo ci taxaw nii. di ko ziar bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla si taxawaay sëñ Ba. toor ka xanaa yi nga xam ne rek moom ñoo ñu doon. gunge gunge ci jotaay bi. Mhm. ku ci mel ne Abdallah Baye Fall Madieng. Madieng ak euh, Madieng. Euh, sëñ Lamine Ndiaye sëñ Lamine Ndiaye waa Assane Fall. sëñ Assane Fall Assane moom waaw. Momar la. Assane moom dañ koy beral ziyaaru boppam. mënut a ñàkk waaw moom mënut a ñàkk moom. <laughs> di ko ñaanal mu dolliwaat nag mu dolliwaat. mënut a ñàkk <laughs> tubaarkal la maam Saliou Fall moom sëñ Cheikh Ngounda ak sëñ Badaloo duñ leen fàtte ak. tubaarkal la mboolem mbokk yi nekk Thiès yëpp nag. Euh, beral beral ziar nag soxna maam Jaara Ndaw mat na ko waaw nu ngi koy ziar bu baax ak euh, ak ak ak ak ak doomu ndeyam maam Fatou soxna maam Fatou moom moom benn benn benn bu wecc ñaar la ak soxna Mbada waaw nu ngi leen di ziar bu baax ndeysaan tubaarkalla amiin amiin la la la